si mooy bis bi nga xam ne ci lañuy ñuy fàttaliku wàccub liggéeyu Serigne Touba radiyallahu anhu mooy bi mu ñib jógee njaareem ñibbisi fii ci penku jumaa ji loolu mooy taarixu bis bi mu doonoon mille ci atum 1927 loolu mooy sababu bis bi li waral màggal gi nag mooy Cheikh Amadou mi nga xam ne moo doonoon ab taawam di xalifa bi ko njëkk a wuutu dafa bokk ci dénkaan yi ko sëñ bi dénkoon ne su boobaa te mooy saa yàlla ñëwee akub dogalam Touba la moo waral bi yàlla ñëwee akub dogalam itam Cheikh Mamadou Sa ca mbat ga ca tey ga ca dal ga mu fexe ba indi Touba indi Serigne Touba fii ci jumaa ji te xaddamul ndax doonu woon lu yomb ndax boobu Serigne bi mi ngi ci résidence surveillée te mën naa am bu fekkoon lu siiw la wala lu lu lu lu ñëpp yëgandoo la ba yëngu am tubaab bi dana intervenir te su boobaa Serigne bi du ñëw. waaye Cheikh Moustapha yàlla dimbali na ko moom mu indi sëriñ bi te dara xewul wax dëgg yàlla te loolu itam luñ ko war a delloo njukkal la ndax Touba bu mel ne nii mu mel yàlla ak sëriñ Touba mi fi nekk moo tax mais bu fi sëriñ Touba néewuloon jàpp naa ne Touba du ni mu mel Cheikh Moustapha itam moo wootee màggal bi laataa ma koy woote itam toog na ay at yu bari lu mat juróom-ñeent jàpp fukki at soog a wootee màggal bi ndax boobal euh, sëriñ bi jógee na fi mu war a song chantier yi te mooy saytu njaboot gi euh, commencé liggéeyu jumaa ji bi mu demee nag ba yooyu yëpp mu commencé ko ba ba mu sori ci la nag woote bis bi nga xam ne mooy màggal gi njëkk a woote fii ci Touba. am na ñu wax ne 1936 la ko njëkk a woote itam ba mu ko woote tam dafa wax ne taxoon ma di ko woote mooy damaa bëgg a dajale murid yëpp ci dëkk bu tedd bi ci pàkk bu tedd bi ngir ñu fàttaliku ngir ñu fàttaliku fàttaliku nag lu yaatu la te mooy nañu fàttaliku Serigne Touba mi nga xam ne fi la nekk woon di liggéeyal yàlla guddi ak bëccëg nekk ci loxoy noon yi ba sama borom dogal mu wàcc ab liggéey ñibbi